dem bi ak dikk bi doon na lu jafe lool ci ñi fare foofe ca marché Wakam ndax ndox yuy ball comme niñ ko mën a seetloo ci yile image tali dëkk baa ngi na boo yee rafet ba bëgg a waaye tali marché bi ndoxu fosse du day bal rek di bëgg du ñuy rey boo solee sa yére yu yiw yu set micro bi dugg saw yaram moo kenn moom daal mu ngi noonu daal. da ñëpp a soj ñëpp a xaj te ni ñu koy noyyi suñu poumon yi baaxul baaxul moom bu ñu jàppoon daal côté boobu daal na baax trop. mu nekk ay jafe-jafe yi nga xamante ni. yemul ci mbedd yi rek. ñoo ngi koy dund ba ci seen piiru kër. saa su ne parce que bu fekkee ne fii demul ñun suñu toilette intérieure du mën a dox parce que ñun ñi on a dû des investissements concernant euh, lii. Euh, euh, les sanitaire xam nga kër li si jiitu mooy lii sanitaire. problème assainissement bokk na ci li ko indi di yokkute population bi Mamadou Diop daa jàpp ni rek canalisation bi mu antanatul askan wi. léegi tuyauterie yi si am sa sama gis-gis selon sama gis-gis dafa tuuti par rapport ak yi si nekk. donc léegi la seule solution mooy c'est le redimensionnement de la tuyauterie pour que ndox yi eaux usées yi mën a dem géej. ñu koy nakarloo bu baax di ñaan maire bi rekk mu jël ci ay matuwaay ni mu gën a gaawee ndaxte doon na problème bi yamul ci circulation bi kese daa seen koom ak seen wér gu yaram.